tey day dañu am mbégte ubbi benn benn atelier benn waxtaan la boo xam ne bii ministère bi mooy euh, tàmbali benn projet boo xam ni dañu koy def ci wàllu assainissement maanaam nu ñuy toppatoowee ndox yi nga xam ni euh, mooy ndox yu yu ñu jëfandikoo ba noppi euh, ci kër yi ak ci gox yi ak ndox yeneen yi nga xam ni itam dañ ko daan jël di ko sànni ji ndax lu lu lu xaw a yàqu la noonu lañ ko gisee woon waaye ñun ñu gis ni mbiru assainissement dafay lu important lu am solo ci doxalinu doomu aadama muy priorité tamit ci gouvernement bi bi président Bassirou Diomaye Faye yegsee aussi ak politique yi nga xam ne teg na ko ak vision bi mu dëppoo ak li ñuy wax objectif du développement durable ñu ni fii ak 2030 dañu bëgg doomu aadama bu nekk nga mën a jot ci ndox moo xam ne mii ndox mu baax la ndox mu sell la mu doy waaye itam nga mën a jot ci ay assainissement maanaam lépp loo xam ne ndox mun bu ñu jëfandikoo la ba noppi nekk ci kër yi ñu mën ko utiliser yow nga am aussi foo koy jëfandikoo ci ay jumtuwaay yu gën a baax yoo xam ni dina euh, la dimbali ci sa wàllu wér-gu-yaram dina dimbali itam euh, askan wi euh, ci wàllu environnement waaye dina def ba doomu aadama bi ngoram mu mën koo sàmm parce que dañu seetlu ni ci suñu réew yi ba tey ñi nga xam ni jot nañu ci service assainissement maanaam ñu mën a am ay toilettes yu baax maanaam di fu ñu suturloo euh, fu fu fu fu baax fu fu fu fu ñoŋ euh, xayma bi boo koy boo koy seet euh, téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ak benn ci dëkku dëkku taax yi boo koy jël ci réew mi ci boo ko boolee méngale dëkku dëkku àll yi juróom juróom fukk ak lu ñaar rek lay toll boo jëlee nag ci réew mi nga boole dëkku taax yi ak dëkku kaw yi juróom fukk ak ñaar yi ak yu toll noonu ci lay toll xam nga ni loolu kon lu gàtt la loo xam ni Euh, naam def nañ ci liggéey bu yaatoo yaatu bu am solo gouvernement yi fi jaar yépp ku ci ne def nga ci ay jéego waaye liggéey bi dafa des ndax bu ñuy wax loo xam ne lii nit ki mënu koo ñàkk am nit ki bu ko amul dafay indi euh, loraange ci doxa ci dundinam waaye dafay xawi suturaam boo xoolee rek kër bu amuloon toilette nga de xool jafe-jafe yi ñu fa ya ñuy am wala bu toilette yi baaxul nga xool jafe-jafe ya ñuy am ñu gis ni ci réew mi am na ba léegi ñoo xam ne ñii bu ñu bëggee dem ci wanag dañuy dem ci àll bi amuñu ay douche yu baax ay wanag ci biir kër yi loolu nag réew mu mu am euh, yaakaar naa gouvernement bi waratul tàyyi di ci taxaw di ci liggéey pour que mën a dimbali doomu aadama yi ñu jot ci lu ci lu mel noonu loolu nag ba tax euh, gouvernement bi ci taxawaayam am projet boo xam ni fondation Bill et Melinda Gates muy fondation bu mag boo xam ni bii yàgg na ànd ak gouvernement bi ak ministère bi en particulier di ko jàppale mu ñëw indiwaat beneen projet bi ñu tuddee ko projet amélioration gouvernance maanaam yorin ak doxalin wi nga xam ne moo jëm ci wàllu assainissement euh, ñu def ko ak ministère bi euh, mu di nag lu ñu rafetlu lool ak lu ñu am yaakaar parce que ñun jàpp nañu nii donte am nañ ci ay gis-gis donte xam-xam am nañu ko ci technicien yu gouvernement ministère bi am na ko ci yeneen i département ministériel am nañu ay technicien waaye ñu jàpp ni réew mi fi mu toll du mën a dem ba euh, li mu bëgg lépp mën ko cee def te amul ay partenaires yoo xam ne dañ ko ciy jàppale. lépp lu ñuy def ministère bi du tëju rek ci bureau bi bind ko génnee ne lii la ñuy doxal dafay ànd ak acteurs yëpp ñu bindandoo ko tabaxandoo ko su ko defee bu ñu koy def sa askan wi yëpp mën cee gis seen bopp.